ay dictateur euh, bu ñu déglu kilifa diine yi waaye nag euh, nañ nekk ay dictateur euh, citoyen ak ay dictateur yoo xamante ne ay patriote la ñuy doon donc le mot dictature moom moom mooy mooy problème bi ci mbir mi ndax nag ñoom dañoo xeex dictature est que tey war nañoo utiliser le mot dictature jëmale ko ci seen gouvernement ak coowal li nga xamante ne tey moom moom waroon na bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy dalal ganu sëñ Muntaxa fii ci King Fahd Palace sax mu daal di rejeté loolu le noo jàngatee loolu dante yaa ngi woon foofu loolu loolu loolu dañuy dañ ci am naqar boo xam dañ koy jëmale ci président de la république muy Bassirou Diomaye ndax moom la ñu élire nag mu nekk président toutes les sénégalais ci wàllum Zahir Bassirou Diomaye fay mooy kilifa képp ku nekk ci réew mi ku bañ ak ku nangu ndax moom la ko yàlla jagleel. Mm-hmm. léegi nag am benn waa joo xam ni ñaan ko booy Omar Diagne dafa yàgg nekk ci réew mi di xeex suñuy tarixa di xeex li nga xam ne muy euh, yenn yenn yenn yenn actes yi nga xam ni mouridisme ñu ngi koy def wala taalibi tijaan yi wala xaadir yi wala ñeneen. ndax ku ne xam na ne Cheikh Boy Omar Diagne moomu kenn mosu koo gis mu jubóog tarixa yi moom ak xëbar xëbar moomu noonu cëqal cëqal ma te sikkim bi def nii tur bi sax bëgguma ko wax. ñooñu yooyu moo nekkoon seen léegi nag moom bu demoon nag taxaw jël benn position ci wàllum politique ni day ànd ak Ousmane Sonko ndax am yu bari yoo xam na nañ ko tuumaal ci ay wàllum salafis ay Ibadu Rahman ay yu yu bari. kii nga xam ni juboowul ak tarixa yi nga jël nommé ko ci palais bi dox ko digganteem ak état ak kër kilifa diine yi ça veut tout dire kon nag Bassirou Diomaye fay bu fekkee tarixa yi dañ laa ñor wala yilif sénégalais yee ñor poste boobu nga jox Cheikh Omar Diagne da ko fay jëlee seppet nga ko def sànni ko ci xaj parce que nag lii mu def nii mën naa taal dëkk de ndax magal Touba dafa dafa dem ba bok ci culture sénégalais yi. non loolu saf ta wax. magal Touba dafa dem ba bok ci économie gu Sénégal. parce que xam nga tabak si événement bo xamante c'est partout dans le monde. très bien mais magal Touba mooy suñu bu magal gi dikke da ngay gis promotion bi pour yombalal loolu ci magal lañ koy def ak ay walum bu gaay de dem rom pour aji xawma rom affaireu pap bi dem noonu. Mhm. ngay gis ñu koy def ñuy wañ billet d'avion yi pour yombalal pré la yi la yi ñuy dem. Mhm. ak dik nga gis économique bi bu magal gi dikkee ni muy duggal ci budget Sénégal tay nga gis benn ben nit ko xamanteni ni nii kenn xamul fu mu jóge ngeen tek ko ci palais bi lettre bo xam ne biñ koy bind. di sàkku ci état yow adressé wuñ la ko muy Cheikh Omar Diagne joxuñu ko ko et euh, li nga xam ne mooy ko mooy organise communauté de organisation waxuñu ak moom dañoo adressé le chef d'état muy Diomaye Faye mhm. moom lan la ci wut bay tontu foofu moo jar a taxaw lan la ciy wut bay tontu naan ay dañuy yaxanal xaalisu état ay xaalisu état fi ko doon dugal ak fañ ko doon def nekk nangam nangam yoo xam ne wax yu amul bopp amul genn man nag moom mii aw dara lu ma koy wax xam nga kan laay jam baramu tuuma hmm. mooy président de la république. est-ce que président sant ko ko aussi question. waaw bu moom moo tax man la moom moo tax man la. bu neexoon président lii mu def lii mu def du ko def. dama ne bu neexoon président de la république Bassirou Diomaye Faye lii mu def du ko def su neexoon président de la république Bassirou Diomaye Faye bu ko neexoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yenn propos yi nga xam ni sax Ousmane Sonko koy tenir ci biir dëkk bi te ce n'est pas normal du ko tenir chef d'état fulal la ak fayda chef d'état amul xarit amul mbokk commencement la rek dèjà wax naa yàgg naa koo wax président de la république amul mbokk amul xarit xam lan la am hmm. kiy défendre ay intérêt tan nag intérêt jomaay xam nga mooy lan hmm fexé juba kër kilifa diina yi gis nga sénégal gii ñako don tojal ak talal ak dan juy talibi bi talibi mu tegi tijaani xaadar lañ de te bo yaa yewu yeewu de dem rek ties bama ma biñuy waxtaan ci affaire Cheikh Omar Diagne bi ben boy bo xam boy booy passif la lu ma dama non gars yi di mais ga mais gisoo waajooñ nga xam fan cadre la bir passif mo taxaw wax ko j'ai financé des millions pour campagne Bassirou Diomaye fay bi même tay ma bayyi parce que biñu ñu campagne bi jexé ba tey bi ñuy nekkee président pendant 4 mois ba lay amul dara luñu tek sama loxo bi lu mais vide man nak duma am gatcha ci kanamu sénégalais yi damay téla bayyi barina bari taw gars yi la moom sax te fuñu mu nekk nii. ak maa xam naa ne fukki fan ak juróom ñoo ne ci assemblée nationale ak maa bëgg ñu tas assemblée nationale. dina ci assemblée mais même euh, coalition Diomaye euh, dafa mel ni am na ñoo xam ne ñu ngi euh, jooy loolu ne bi ñu faloo ba léegi ñoom yëguñu seen bopp kon est-ce que du ñu demal seen parti bopp ñu bàyyi li nga xamante ne moom mooy. waaw non loolu loolu loolu damay dikkaat ci commissaire na Keïta rek loolu mooy xeex bi. xeex bi ñuy wax diggante Diomaye ak Sonko loolu mooy xeex bi mais du ay kurpañ ak ay mbejanteeg yu déedéet xeex bi loolu la parce que dafa am ñaari parti la. waa waaw coalition Diomaye président. moo nekk président ak parti Pastef bi nga xam ni accès wul ci pouvoir bi. parti bu ñu dissoudre la woon existé lu woon coalition Diomaye président moo gagné élection présidentielle léegi nag ñee bu ñu leen remettre indiwaat leen joxaat leen seen récépissé.

Amadou Ba day pël fee kii peut-être yi Abdou Mbow jóge fee xam nga ñoom Aly Ngouille Ndiaye ñoom Mame Boye Diao ñëpp di wax déedéet dañ koo jox nguur gi ñëpp def nii seetaan ko sa waay xàcc fee dóor gisul kenn xàcc fee dóor gisul kenn mu commencé di menacer commencé xam ni gisul benn policier mu dal ci presse bi dal ci ay fiscal dal ci ay impôt lu nekk mu lëmal lëmal ca fi mu nekk ñi dafa jaaxle bopp bi tëju ko hmm. boobu bee tëju moo tax suñ ko gënee bàyyi ni damay ragal sa Ousmane Sonko te mu xaru waaye doo fi xaru de. di nga dem ba 2029 réew mi ñun soxla nañ ko. non dafa dul xaru sax. du fi parce que. ndax moom dañ koy sécurité mat sëkk waa bib yii ak waa gendarmerie yii ñoo lay sécurité ngay doxal bu baax. lu leer laa la wax yaa ak Bassirou Diomaye Faye mii du ngeen tëcc. du ngeen génn réew mi du ngeen naaw du ngeen teg di ngeen gérer réew mi ba deux mille vingt neuf te man góobu sax deux mille vingt neuf man li ma gëm mooy deux mille vingt cinq élection présidentielle anticipée ndax buñ de buñ jógee ci législatif yi nii ba gars yi jëlaat assemblée nationale bi ña ngeen naxoon ñëpp seen bopp yi tourné ba ñu dellusiwaat nekkaat doomu aadama ba ñu jël élection yii. dinañu voté benn loi boo xamante ne nii dem li nga xam ne mooy élection anticipée. te loolu mooy programme opposant bi am na solo Tom comme ni nga waxee bi nga duggee ci assemblée nationale euh, ñi ngi.